comme ni ko Sénégal yi yëpp di dundee rek xam nga moom kër moom ndox ko yor boo xëyee amoon ndox moom day xaw a metti ci liggéey bi na boo yoree ay xale affaire yooyu noonu mais comme ni ñu koy waxee rek tout est revenu à la normale ñu yaan yàlla rek mu continuer noonu. Euh, man déggoon naa ñuy wax euh, de ndox day coupé xuma dañu am benn problème au niveau Rufisque je sais pas mais am na nañu problème jafe-jafe bi jusqu'à présent sax fi ñu ba léegi day coupé ah day coupé a na trop sax.

parcelle ñoo moom guddi gi ñun bëccëg bi loolu lañ jël léegi nee na parce que ndox bi moo dul doy moo tax coupure bi métti. Ah, sant yàlla waaye metti na woon daal bu ñu sañoon chaque jour ñu am ndox rek ay sant yàlla yal na yàlla yombalal rek waaw ba ñuy dellu ci lu ñu nekkoon rek ndox bi am. Euh, fa weekend bi euh, man man moom personnellement sama bopp laay wax parce que veillé naa ba ay 3 euh, heures du matin ba 4 heures aw ma ndox. léegi ma dem tëdd bàyyi robinet bi noonu bi ma xëyee laa gis muy tokk-tokk ci laa profité rootaale noonu ba ba entre vendredi bi euh, samedi bi dimanche matin dimanche bi lundi ci suba astafurlah ci la à la normale. ah mais débrouiller avec rek des fois su qui ont dañuy euh, des des bidons en voilà comme pour sangul ak pour raxas rek voilà c'est ça. ñu am ñu may ñu am na am réservoir yu waaw ñu am mm, kii nu mu tudd suppresseur ñoom ñoo ñuy may ñu ñu yenn saa ñu jënd barigo ndox yi mooy borom sareet yi ñoo lay andil waaw. ba barigo 1000 francs la. am mais ñu jéem a góorgóorlu rek parce que bu ñu la joxee benn euh, secteur vraiment da nga ci war a taaw pour askan wi waaye nekk ci li leen neex moom vraiment comme noonu dañ ci war a taaw xool ni askan wi ñoom ñu ngi souffrir ci fi ñu toll facture yi du arrêté ah da ngay coupé ndox mais facture yi moom day ñëw ah waaw. facture yi day ñëw presque day gëna cher tout le temps day gëna cher du mësa wacc wàcc choix so fayul ñu couper ko léegi lan ngay def. ñu dimbali ñu jappalé ñu parce que non seulement coupure bi day dafa metti mais facture yi bu ñëwee nu ngay fay dafa bare pour ben nit sax waaw facture yi dafa cher ba pare ñun gisuñu ndox. dafa metti nañu jappalé ñun ñi ci ndox mi. day metti dund bi day metti dañuy mujjee woo borom saret yi ñooy ñëw di kii ndox xam nga loolu dafa métti. Barigo, me licença. Lucemos.